di wax ni commission depuis lors ay commission ñi ngi fi commission yoo xam ne dañ leen mettre en place rien que pour ñu assurer vraiment reprise correcte ak séjour correct xale yi ci biir école bi matuwaay yëpp jël nañ ko ndax euh, depuis ñu annoncé woon première rentrée euh, le 18 bi passé 18 mai ba léegi ñoo ngi liggéey di xalaat naka la ñuy def ba réussir cette fois-ci mën a xeex ak feebar bi ndax feebar bee taxoon ñu tëj école yi te ci loolu bu ñuy dellu si tam feebar baa ngi fi demagul donc ñu doon xool naka la ñuy def ba fii ci biir lycée bi à l'interne ñu mën ci xeex mën ci xeex nag pour ñu def ko dañu defoon benn comité local de lutte contre le Covid boo xam ne bu lycée lamin Gueye la ci biir comité boobu parents d'élèves yi dañu ci accompagner élèves yaa ngi ci seeni représentants personnel d'encadrement baa ngi fi délégué professeur yaa ngi fi délégué surveillant yaa ngi fi tamit

donc ñi ngi ci moom ñoo ñuy accompagner ci sensibilisation bi sensibilisation bi nag muy volet bu am importance mooy volet communication ndax xam nañu xale yi bu ñu ñëwee su xel yi dalul duñu ñu mën a jàngale foog ñu dalal xelu xale yi foog ñu dalal xelu jàngalekat yi loolu mooy liggéeyu commission boobu. mu am beneen commission boo xam ne infirmière école bi moo koy jiite loolu mooy jox nañ ñu ay euh, flash flash war nañu raxas mais bu ñu gisee cas bu ñuy jaaxal du ñàkk. ñu xam naka la ñuy def et ci biir boobu infirmière baa nga ca waaye am na beneen parent d'élève boo xam ne moom docteur la xelam dafa màcc ci loolu moom aussi mi ngi ciy accompagner. tey dañ fi ñëwoon ci benn cérémonie boo xam ni dañoo décidé woon man ak bureau bi ak euh, membre euh, amical bi ñëw fii def benn participation pour jàppale madame la proviseur buñ ko tuddee muy administration bi. ngir li ñu dëgmal muy la vingt cinq xale yi war a dellu si pour jàng si ñu indi sunu wàll ndaxte ku ci ne xam nga ni état bi administration bi am na euh, euh, geste yu ñu commencé woon a def donc mais comme ñun wax dëgg yàlla li ñu doon lycée bi la euh, li ñu am ci lycée bi lañ ko jëlee ñu ni kon nañ ci seet lan lañu mën a dajalaatu ñu indi ko jàppale leen ngir sunu rakk yi sunu doom yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu mën a dellu si jàng si ak xëy na xel mu gën a dal ci bu fekkee ni dégg nañu ni seeni mag ñëw nañu fi seeni nijaay ñëw nañu fi pour dolli leen ci lu leen jàppale pour seen sécurité. ñëwati nañu encore féewaliwaat geste bi ñu tàmm def di ñu jàppale tey nag comme dañoo jëm ci rentrée nee nañu jeudi 25 dañoo war a dellu si si école yi ñu ñëw jàpp ci rentrée bi jàppale ñu ci assurer conditions yi ñu laaj ci rentrée bi ndax xam nañu rentrée ren. dafa nurawul wala rentrée bi pas duma sax wax ren deuxième rentrée bi dafa nekk dans un contexte particulier muy mbas mi ñu jaaxal ñun ñëpp léegi nag ñoom ñi ñëwoon tey si jàpp si indil nañu matériel matériel bu ñu soxla muy lave-mains yi